ñu ngi am mbégte dalal tey euh, Modou Mboup mooy secretaire général bu mouvement des entreprises du Sénégal euh, monsieur Mboup ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci matinalu tey bi ma lay fay mhm. madame Thiam aussi mhm. am kontaan aussi di waxtaan ak yow euh, ci suba teel gi jërëjëf bi nga xam ne mooy suñu assise yi mhm. assise nag dafa nekk ndaje moo xam ne ñun dañ koo dañ koo fonk depuis vingt ans at mu nekk ñu organiser ko. justement tey la MEDES di amal ñaar fukkeelu session assise économique yi nga xam ni wax nga ko ñaar fukki at a ngi nii ñu dikk euh, amal euh, lan mooy euh, solos assise yooyu ngeen di organiser. xam nga madame Thiam at mi yëpp ñun dañuy liggéey. Mm-hmm. ndax secteur privé bi amuñu sax temps di di di di toog di waxtaan di échanger dañuy liggéey pour entreprise yi mën a taxaw. pour économie bi mën a taxaw pour ñu mun a en emploi mais al mu nekk nag dañ ne suñu demee ba ci nawet bi nii ñu mën a arrêté def pause maanaam def pause boo xam ne dañuy toog pour xool nag li nga xam ne fi mu nekk nii moom mooy suñu solo li nga xam ne nekk nii mooy question intéressé at mu nekk ñu toog jël benn thème thème boo xam ne kat dañuy soxal bu nekk thème économique wala thème social pour réfléchir pour aussi suñu ko defee pare génn ci ay ay ay génn ci ay li ci am importance mhm. génn ci ay recommandations génn ci ay ay avis jox ko gouvernement bi ñun thème énergie wax nañ ci thème emploi de jeunes wax nañ ci thème préférence nationale wax nañ ci thème économie numérique euh, wax nañ ci pratiquement amul benn thème boo xam ne économie la boo xam ne suñu cee organiser ay assises ñu toog waxtaan ci jël nag la fay ruusee ci waxtaan wa ci en matière recommandation ci ay euh, avis ci ay tegtal ñu jël ko yëpp daa koy tënk ci ap ci rapport tënk ko ci téere daa koy jébbal gouvernement bi ñun kat ñun bii ñu secteur privé lii ak lii ak lii lañ ci xalaat nous sommes prêts nag à discuter avec le gouvernement sur ces questions là. kon su ma la déggee hmm. baal ma ci dog bi su ma la déggee kon yéen li waral dëgg-dëgg ngeen euh, euh, sos assises yi mooy ngir dugal seen loxo ci ni réew mi doxee ak euh, suqaliku gi. waaw parce que ñun nag comme ñooy ñun dañ nekk secteur privé national. Hmm. di suñu alal di ko investir pour développement réew mi di leb ci banque yi di ci investir pour développement réew mi fi mu nekk ñëpp xam nañ ne développement. secteur privé national moom moo ko moo ko moo ko yore. Hmm. développement privé bi ñoo koy def de manière générale kon nag ñi nga xam nag ñooy def secteur privé ñooy développé dëkk bi ñooy tabax koom-koom bi mm. maanaam ñooy créé ñooy créé euh, euh, richesse yi mm. ñooñu nag dañ jàpp ne réew lu fi wax ci politique publique war nañoo waxtaan aussi ak ñoom ñu wax seen xalaat mm. ndax loolu day am solo suñu ko laajee nag léeg-léeg gën ma laaj xalaat su ko defee ñu dajaloo waxtaan échanger pendant ay heures ay ay jours jox leen ko léeg-léeg it gouvernement bi du ñu ko laaj waaye ñoo gis question yoo xam ne question yu importante la. Mm-hmm. yoo xam ne kat laaj na ñu ñu wax ci liñ ci xalaat d' abord balay balay bay bay naan bay bay bay bay wéy na mbuus balañ koy wax waaw ah, waaw waaw balañ koy wax mm-hmm. donc dañuy toog jël thème bi discuter ko càmbar ko génn ci li nga xam ne loolu lañ jàpp ne lii lañ war a def mm-hmm. def ko ci ab rapport ne ko naa ko nii ko gisee. Mhm. pour ñun suñ bëggee réew mi jëm kanam ci faf côté bi nii ak nii ak nii lañ war a doxe mhm. donc jébbal leen ko waaye nag aussi seetlu nañ quand même ne souvent suñ defee loolu danañ gis ne day am njeexital ci politique gouvernement bi. Mhm. dañuy gis ne souvent gouvernement bi am na côté yoo xam ne dañuy dañuy ci dañuy dañuy compte. mais doyul dañoo bëgg fii mu nekk nii chaque fois ñu tam am xalaat pour élaborer benn politique nouvelle ñu associé ci secteur privé national. ñu wax seen xalaat. indi ci ñoom itam ne xam ne noonu la seen seen i gis-gis ndax su ñëpp bokkee toog xalaat ñi nga xam ne ñoom lañ tënk réew mi ñu koy diriger. Hmm. di joxoon fi a jaar ak ñi nga xam ne ñoom ñooy construire économie bi ñooñu dañu war a waxtaan de manière permanente. Hmm. ñooñu dañu war a waxtaan waru dakk parce que ñun ñaar ñoo ŋànk réew mi. Hmm. mooy pouvoir public bi nga xam ne ñoom lañ dénk pour ñu ñu ñu ñu gouverner ñu ñu ñuy wotal loi yi di définir politique bi. di créer cadre d'expression yi. ñooñu dañu war aussi wala ñuy def dara wax ak ñi nga xam ne ñoom suñu ñoom suñu créer cadre ba pare ñu ñoo koy feesal. ndax ñoo ñëw ci biir cadre bi xool ñu nañ ci mën a duggee def ci suñu alal pour réew mi jariñu. kon nag ñun dañuy appeler toujours le gouvernement ne nous sommes un partenaire important. et que war régulièrement. ñu am ay discussions. ñu am approche inclusive. donc par rapport ak problème yi nga xam ne Sénégal moom la moom la jànkonteel. Mhm. nag ma des ma des ñun loolu la ñu taxaw. parce que euh, suñu président le président Mbadjik Diop du xaar rek ñu woo ko kaay wax sa mhm. su gisee question boo xam ne question bi importante na. day taxaw ñu kat ñun nañ ci xalaat d'abord. Mhm. jébbalu gouvernement bi li xam ne loolu ci xalaat wala ñun ñu bett ci ci question bi. justement bañ ko bañ koy def ba léegi nag vraiment gis nañ na am na njëriñ. waaw ren nag ngeen tànn thème mu euh, croissance à deux chiffres de 2024 euh, ban njeextal la mun a am ci modèle de développement bu Sénégal lan moo waral ngeen tànn thème bi. xam nga assurance ren yi. Mhm. dafa dañ koy def euh, jamono boo xam ne dafa dafa dafa dafa particulier ndaxte xam ngeen ne depuis ñaari at daanaka addina bi moo ko lëmbale Covid 19 moo ko lëmbale. muy mbas mi. Mhm. amul benn pays boo xam ne fi mu nekk nii euh, mbas mi sonalu ko. Mhm. muy bu mag muy pays bu doomu muy pays bu ndaw ñëpp la mbas mi euh, sonal ñëpp la mbas mi euh, perturbé ba nga xam ne mbas mi amee Sénégal wala ma léegi ñaari at état Sénégal quand taxaw taxaw bu ma sëkk ndax dañ taxaw ne mbas mi taxaw commencé fagagal entreprise yi commencé sonnal ménage il faut ñu jël ay mesures pour que suñu pays bañ a suux foofu la ñu adopté benn plan bu tudd woon plan de résilience économique sociale presque boobu plan Sénégal euh, jël ci daa ci budget bu mille milliards de francs CFA. Hmm. pour jàppale entreprise yi pour jàppale ménage yi pour jàppale su Sénégal yi nga xam ne dañoo na ci bitim réew te mbas mi faaga fa sonal leen ci yooyu mille milliards maa ngi rappelé ne presque huit cent milliards yëpp daanaka entreprise lañ ko jox. Hmm. entreprise yi aussi vraiment def ci fulla ma sëkk taxaw góorgóorlu ba bañ a dàq euh, employeurs yi bañ a yokk chômage bi bañ tëj. dafa ñu tëjee loolu du baax. Mhm. donc entreprise yooyu ci ci bu rëy rëy yi loolu sax tax suñu économie malgré difficulté yi. Mhm. daanuwul narmeeluwul. Mhm. ba mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi taxaw. mi ngi taxaw waaye nag dañoo gis ne euh, croissance bi maanaam maanaam yokkute croissance yokkute développement bi dafa dafa dafa dafa wàññeeku ndax bu njëkk doon nañu ba ay ay ba ay six ba pour cent sept pour cent. léegi ñu ngi ñu ngi ciy prévoir 0,7 pour cent 0,7 donc loolu moo tekki ne en fait croissance wàññi ko na baax a baax a baax a baax a baax mais nag comme économie bi nërmeeluwul daanuwul dafa dafa dafa xaw a dafa xaw a sonn rek ñu ne nag léegi nag comme daanuwuñu mooy résilience bi léegi nag lañ fexe plan boo xam ne léegi da koy yëkkati fa mu nekk daal koy booster mu gën a yokk ñu prévoir sax ne su dee l'an deux mille vingt quatre ñu a nekk maanaam boobu dix dix pour cent. jëm ci jëm ci kaw pour loolu nag gouvernement bi adopté benn politique bu ñuy wooyee politique benn programme PAP 2A donc PAP 2A boobu effectivement euh, président république woo secteur privé national bi woo acteurs yëpp jam ñaajoo ñu discuter ko ba ba ba ba ba adopté ko léegi nag ñun d'accord nañ ci ci loolu ci ci ci boobu programme wax nañ ci suñu suñu xalaat te aussi pare nañ aussi pour pour dugg ci boobu xeex pour que fii ak 2024 euh, Sénégal am taux de croissance donc à euh, à deux chiffres. Mhm. waaye nag suñ ko bëggee nag foog aussi ñu changé doxalin. Mhm. ndax doxalin bu njëkk ba mënuñoo permettre ñu am croissance à deux chiffres. foog ñu changé doxalin. Mhm. moom mooy loolu ñu woowee modèle économique maanaam foog ñu changé nañ doon doxalee économie bi nañ ko doon téye ak fañ ko jëmale woon. waaye gëm nañ ne su fekkee ne dooleeluñu secteur privé national bi fekkee ne lu ñu mel ne waa MEDES. Hmm. ak seen naataango yi nekk yeneen organisation yi. Hmm. suñ ko deful du ñu mun a atteindre euh, boobu to donc à à deux chiffres. Hmm. te nag pour ñu li si mooy d' abord état bi appuyer sur secteur privé national. ba xam ne ñu fi joxe comme marché marché public yi ñu ñu ñu ñu beral ci loxo culture nationale. ñu jël ko ci lu am solo jox ko pour mu exécuter ko ndax ñu mën a am ay ay ñu mën a réinvestir. ndax seetlu nañ loolu loolu ba léegi eh, dafa manqué ndax li ëpp ci ñi liggéey ci réew mi ci marché public yi li ëpp dañu nekk ñoo xam ne dañu jógee bitim réew ñëw di ko liggéey. suñu paree jël jël seen bénéfice ak seen alal yóbbu seen réew. ñu jàppale nag réew mu nekk ay doomam ñu fa juddoo ñoo koy développé. kon nag gouvernement bi nañu euh, jàppale di ñu jox ay marché public ñu ko mën a exécuter di ci mën am comme bénéfice di ko ci dëkk bi pour dëkk bi dëkk mën a jëm hmm. jàpp aussi ne régime fiscal bi actuellement dafa dafa dafa dafa xaw a diis ñu xool ko ñu ko mun a wàññee ba mu gën a oyof ci ñun. Hmm. ñun aussi engagé wu nañu ne su fekkee fiscal bi ba gën a oyof ci li nga xam ne si la ñuy gagné. comme bénéfice. Mhm. dañ koy encore réinvestir encore ci économie bi créer emploi. Mhm. waaw donc loolu aussi suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu enga suñu engagement la. Mhm. nous sommes prêts donc ci ci loolu. ñu jàpp aussi ne financement économique foog banques yi jàpp ci. dëkk yëpp banques yi ñu financé économie bi ak système ban système système financier bi moom koy financé système bancaire bi ñoo koy financé. ñu jàpp ne ba léegi euh, système bancaire sénégalais gaa yi ñu mais mënoon nañ def mieux. Hmm. on peut faire plus. parce que soo xoolee ci dëkk yi nga xam ne comme ay Maroc Tunisie ak ñooñu. Hmm. pratiquement soixante pour cent PIB bi. Hmm. maanaam producteur bi koom-koom bi ñu ko financé mooy mooy mooy banques yi. Sénégal nag il n'y a que vingt deux pour cent rek vingt trois pour cent. ci pays ci koom-koom bi la banque yi di financé. donc fokk ñu xool aussi naka la ñuy allégé ba euh, entreprise yi mën a am ay koppar. yu ñu leen mën a lebal pour ñu mën a liggéey di di fay donc yooyu yëpp a aspect la yoo xam ne. Mm-hmm. suñ ko amélioré. privé bi dana gën a sawar. Mm-hmm. dana gën a mm-hmm. pour que suñu pays bi mën a croissance Euh, de mhm. loolu la ñetteelu thème bi di tënk sax mooy coppite yi nga xam ni war nañu ko indi ci koom-koom bi ngir mën a am euh, suqaliku goo xam ni gu sax lay doon waaye gu ñu yóbbu ci ñaari chiffres mooy croissance à deux chiffres. beneen thème wax itam ci contribution bi secteur privé bi war am euh, ci croissance à deux chiffres boobu. Mm. tey ban taxawaay la ci secteur privé bi particulièrement MEDES war a am muy rôle boo xam ni war nañ ko si jouer. bon euh, ñun au euh, au dañoo jël part ñoo participé woon bokkoon nga xam ne dañu doon discuter ci PAP. 2A euh, bi mm-hmm. demoon nañu aussi jam ñaajo ñu koy koy discuter ak ak la République. Mm-hmm. président la République joxe ay ay tegtal ne léegi dañoo war a fexe ba li nga xam ne ñu ngi koy bay ci réew mi ñu ko fi soppee ñu ko fi transformé. Mm-hmm. bañ a bay gerte rek exporté graines yi wala bay bay mango rek exporté mango yi mais li ñuy bay ñu koy transformé ndax loolu ñuy plus value mhm. transformé li bay doo ko jaay parce que mhm. souvent su ngeen seetloo da gis ñu bay suñu suñu suñu suñ suñu mango jaay ko noonu bitim réew mhm. ñoom ñu transformé ko ay jus ay marmelade ay confiture ñëwaat di ñu ko jaay plus cher donc loolu ñu koy defal ñu ko ñu jéem ko defal defal defal suñu bopp xoolal un un pays comme la Côte d'Ivoire premier producteur mondial de cacao ñu xool un pays comme la Suisse Suisse amuñu sax benn gramme cacao bu ñuy produire hmm. waaye chocolat bi Suisse mooy premier exportateur mondial de chocolat hmm. dañuy importer cacao Côte d'Ivoire ci prix njëg yomb transformé ko chocolat génn waat ko jaay ko lu cher cher cher cher cher cher cher. te loolu ci ñun de perte la. Mm-hmm. donc bay suñu cacao bay suñu gerte am suñu mango daa koy transformer suñu biir réew génne produit fini bi moo ëpp njëriñ pour kii bay moo ëpp njëriñ pour kii transformer moo ëpp njëriñ pour pour réew mi mm-hmm. donc loolu président loo xamante ne noonu loolu laal fa ñu jëm côté boobu. Mm-hmm. loolu d'accord moom. seetlu na aussi ne mbas mi li mu wane moom dañoo ndax mbas mi ñëwee amuñu vaccin. amuñu masque ñu fi defaree amuñu taxal pour pour xeex mbas mi. Mm-hmm. yooyu dañ ko jéggaani dañoo jéggaani masque yi jéggaani vaccin yi jéggaani garab yi loolu nag musiba la ci réew. Mm-hmm. su fekkoon ne amuñu ñu ñuy jàppale jaay ñu masque wala ñu may ñu ko jaay ñu vaccin wala ñu may ñu ko kon réew mi suux. Mm-hmm. kon nag loolu mu c'est leçon léegi nag nañ xeex pour Sénégal am autosuffisance euh, sanitaire li mu aajowoo ci ci paj mi ci yaram gi ñu fexe da koy produire ci Sénégal foofu it ñun MEDES nous sommes prêts pour engagé wu ci engagé wu ci. industrie pharmaceutique. waaw industrie pharmaceutique engagé wu ci soit ak ay partenaires nationaux même ak ay partenaires internationaux ñu engagé wu ci. Mhm. pour Sénégal mën a am autosuffisance. Euh, sanitaire mhm. économie numérique maanaam fi mu nekk nii mooy xarala yu bees yi xarala nga xam ne fi nekk nii. moom moo xew te basé wu ci maanaam ci ci informatique hmm. yooyu aussi dañ ko war a jox plus d'intérêt hmm. moom sax gouvernement bi jox na ko intérêt yu baax ba def ci plan stratégique de développement de l'économie numérique hmm. waaye nag dañ ko war a gën a dooleel gën ko dëgëral gën a jàppale Sénégal yi nga xam ne am nañ xarañ lool ci informatique ak ci boobu fànn pour ñu mën a installer aussi ay start-up ak ay industrie ak ay euh, cabinet pour pour liggéey ci loolu aussi ñun MEDES nous sommes prêts engagé wu ci foofu déjà sax ñun ñu ngi ci parce que soo seetloo ñun am nañ benn euh, chaque année benn réunion ci stage bi chaque année ñu def ñu def ko parce que ñun dañuy tàggat xale yi leen encouragé leen jàppale pour ñu créer ay start loolu ñun déjà gannaaw bi ñu koy wax dañ cee fekk déjà ñu ñun fekk nañu si ñoo ko si jiitu dañ cee fekk jàppoon ne baax na ba di ko def kon naturellement nous sommes prêts gën leen a jàppale aussi ci pour ñu ànd ensemble pour développer développer mm-hmm. donc daal ñun daal ñun pare nañ ci euh, niveau MEDES ak euh, ci au niveau de son président le président Badio Diop mm-hmm. ak au niveau de notre de, de, de nos dirigeants de nos autorités ñun ñëpp en tout cas euh, pare nañu pour engager wu dans la bataille du développement mm-hmm. ndax ñaak c'est la qui vaut tout le reste amul jërëjëf monsieur Modou Mboup leer na yow yaay secrétaire général mouvement des entreprises du Sénégal MEDES amoon nañu mbégte lool ngir dalal la waxtaane ñaar fukkeelu session assise économique mouvement des entreprises du Sénégal nga xam ne tey jii ci alxamis ji ngeen koy amal ñu leen di ñaanal ndam tukkee ci liggéey yooyu nga xam ni di ngeen ko amal ci bëccëg bi yëpp jërëjëf. C'est plaisir pour moi, madame Thiam. Merci